opération désencombrement bi nag du dara lu feebar bi daka si daka fekk si sax parce que avant feebar bi naroon nañ ko initier mais dañoo bëggoon def dañoo bëggoon pare suñu programme Médina Set bu ñu ko pare woon ba pare après ñu commencé désencombrement mais maladie bi daf ko ñëw gën a accéléré parce que boo seetee euh, marché Tilène dafa dafa délimité wu dafa am fu mu commencé am fu mu yem depuis année yi passé dañoo gis ni marché bi dafa jël loo xam ne moomu ko. comme fu ci mel ni rue 21 rue 25 rue 23. Hein? marché bi da si jël loo xam ni dafa jël ba jël buntu kër jàmbur. te loolu c'est pas normal looloo tax ñu initier désencombrement bi avec monsieur le maire Bamba mais dinañ jël ay mesures d'accompagnement parce que marché tamit foog ñu délimiter délimiter ko. tey tey tey tey tey mënoo nekk nga ni da ngay jaay si marché ba pare taxaw si tali bi di jaay mënul nekk. tey tey tey tey ñëpp ñuy jaay dañoo war a dugg ci biir marché bi. loolu la mesures yooyu lañ leen di jël parce que

peloton bi te da ngay lor tamit borom kër yi looloo tax mais ñëpp incha allah dinañ dugg ci biir marché bi toog fa jaay c' est à maladie parce que tey tey tey ñu ngi ci pandémie boo xam ne xamuñu fan lay commencé parce que lu ci mel ni covid 19 mu ngi rey mu ngi rey ñu bari tey tey tey bëgguñu dégg cas Médina moo tax lii nii nii nii nii parce que ñoom hygiène hygiène bi ci war a am dafa des moo tax ñu accéléré li parce que bu dul woon maladie bi peut-être dinañ leen may délai bu gën a mais maladie bi moo tax ñu accéléré